Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la conférence renouvelée, merci de du like, merci de vous abonner, merci également du bail ni commentaire, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des information. et un hein. bokk sénégalais fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci l'hôpital hôpital yeeg ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngay wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam ne erreur judiciaire ak jiiñ leen loo ngeen deful ak euh, tamit euh, tuumaal leen moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delloo leen seen i njaboot ñu fa seen jëf yóbbu suñu borom xiiraal leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xale àjjana fi daw si gaay te yéexi on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continue. actualité bi nag dañuy tàmbali nga Alexis Sanchez mi tontu ki nga donc Ahmadou Bamba qui kii di donc Mbaye Niang finalement vers la Turquie euh, Désiré Seck bi wax ci li nga xam ne mooy ci réserve bu Bayern de Munich ak aussi ki nga xam ne mooy Aliou bi ñe dañ ko daal di dàq loolu la ñuy mais d'abord gars yi kii kala kii kala kii lu ñu wax rek que c'est le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe hein, pour man hein. donc qui nag kan la nek na ko xam tay tey gars yi hein, dañ ko dañu def nañu lepp pour daal di koy neub def nañu lepp pour mu bañ a parce que nit ku ñuul la mais ki kan la gars yi mais également wa box ba tey la ñuy des ki ngeen gis nii nag di doonte euh, Wilder moom nag gannaaw ba nga xam ne nag dañ dafa perte couronne donc octobre bi ni la fas yéene donc duggaat ci li nga xam mooy wàllu box box bi pour daal di fexe ba récupérer waat li nga xam mooy titre am bi nga xam da ko euh, perdroon tamit ci par rapport ak compétition bi mu doon def. manam aussi ca FIFA ki nga xam nak nag moom donc Al Seyni Ndiaye donc di capitaine équipe nationale beach soccer moom nag waa FIFA ñoko euh, invité won ndax dañuy nek di yéssal li nga xam moy programme lepp lu jëm ci walu beach soccer mu nekkoon tamit ci seen invité d'honneur yi ñu koy wax jaa euh, jëf champion comme ni mu koy waxé rek hein saf dégué hein ah, comme ni comme il dit donc ki nga xam aussi moom mooy donc euh, kii di Walid Al-Hosdik selon les informations données par certains médias marocains ak aussi européens dañ ko daldi dakh manam dañu dañoo teggi ndombal tànkam loolu nag est-ce que ju dowul ci nga xam moy mooy joueur joueurs yoo xam ko ci mel akim Ziyech ñom né duñu dellu ci bu fekkee fekkee ne moom mi ngi fa xëy na tamit du loolu en tout cas on ne sait pas li buñ ci amee lu gën a leer na leen ko wax bay amadi ñaan nag finalement dañ ne ca euh, kii Konya Sport ca Turquie daal lañ koy xaar ndax dafa mel ne daal selon les informations déggoo ak ñoom loolu daal la ñu wax buñ ci amee lu leer tamit lañ ko wax mais daal dafa mel ne Mbaye Niang finalement Turquie c'est Konya Sport lay dem euh, rejoindre ñi nga xam ne nag mooy ñoom Pape Alioune Ndiaye entre autres Amath Ndiaye Diédhiou moom it ah, dañ ko opéré le jour de Mayor quoi dañ ko opéré ci benn euh, kiwam baaraamam tànkam donc lañ ko opéré ñu koy souhaité prompt rétablissement moom nag gëj na ñëw équipe nationale du Sénégal alors que bokkoon na ci prometteur yi moom su ma ko xoolee sama xel day xaw dem ci ki nga xam ne donc kii di Samba Diallo qui également di Mbaké Faye ancien défenseur central bu euh, équipe bii di Guédiawaye football club donc mom nak dafa dem ci Danemark du jouer fofu non ñu souhaiter bonne chance champion yalla na la yàlla defal jàmm aussi parce que doomu Sénégal fépp mu nek rek dañ koy ndamo ki nga xam ne également mooy Raphaël Guerreiro bokk ci liste bi nga xamné fi ni wa Manchester City teg nañ ko pour recruter ben arrière latéral donc mom tamit nek na joueur bo xamné Guerrero Dernier na ci championnat de France également mu nekk ca ci Borussia Dortmund bokk ci cadre et aussi malgré la ait wax ci suba c'est confirmé aussi hein. Ou média euh, Chelsea seen site beeg yooyu actuellement ki est en mode Thomas Tuchel moom daal pousse di teg pression ki est en ne daal mooy pour mu daal di recruter ki est en mode donc qui di Pierre-Emerick Aubameyang ndax jàpp na mooy attaquant bi nga xam ne moom la soxla par rapport au système de jeu bi nga xam ne moom la bëgg a est-ce que gars yi xamoon aussi euh, ki nga en mode donc qui di Eric euh, Christensen ak aussi qui di donc Kessié ñoom ba léegi ak kii di Lewandowski inscrire guñ leen ci joueurs yi war a jouer ca Liga bi parce que également dañ ne waa Barça nañ wàññi seen masse salariale et tout ñom nak dañu am sen contrat ben option bo xam dañ leen bu fii ak samedi bu fekkee inscrire lañ leen mën euh, quitter librement dem benen club lool nak instant ñaanu ñaanuñu yàlla egg ci mais ben possibilité la Oussem awar nak mom actuellement ñi di waa Nottingham Forest ñoo def proposition def nañ première proposition pour recruter le milieu de terrain lyonnais Lyon nak ñom leen buñu leen fay xaalis bari nañ ko bayyi mu daal di dem Deulofeu ancien joueur du FC Barcelone jamono ji nek fam no ci Udinese mom nak Marseille dañ ne da ci teg gët du Marseille kessé ndax yenn club yu nek tamit ci Espagne ak ci Angleterre aussi dañoo dugg ci course bi Galatasaray aussi mi ngi ci pour recruter ki nga xam ne mooy et aussi du côté de Marseille ah ki nga xam ne nag mooy Rongier Rongier mi nga xam ne waxoon naa leen keroog mi ngi doon wax ne moom euh, jamono ji donc par rapport li nga xam ne nag mooy Marseille waxuñu ko prolongation contrat wutu mais moom mi ngi toog di déglu moom nag Rongier finalement euh, nee nañ mi ngi discuter pour daal di prolonger contrat am avec l'Olympique de Marseille

a am automatisme yi moom tamit wax na ci nga xam mooy Amadou Bamba Dieng parce que gars yi nee nañ ko Bamba Dieng nee na yow yaay idolom moom nee na dafa yàkkamti euh, gisante ak Amadou Bamba Dieng te bu gisante ak moom bëgg na entraîner ak moom aussi jàppale ko conseiller ko par rapport ak joueur par rapport également ni mu jàppee ne attaquant loolu expérience bi mu ci am awoon tout moom na ko bokk ak moom Bamba Dieng bi nga xam ne aujourd'hui aussi je rappelle que ne gannaaw bi bañ ñëwee Newcastle et tout Fulham aussi actuellement nee nañ dañoo intéressé wu ci Amadou Bamba Dieng on parle également de lui du côté de la Turquie avec Galatasaray mais en tout cas proposition bëri na Bamba nag mook agent ñooy décidé. xool lan la ñu war a def ak aussi les dirigeants de Marseille. Mais pour moi, c'est le moment de partir sur nos temps de jeu. Qui a xam moi, Sadio Kaiser magnifique Mané du côté de Bayern de Munich Taïdi, entraîneur entraîné waat Sadio mi en pleine forme ah. donc nous ñu eu le match bi week-end Bini, donc ñoom Sadio magnifique Mané et Nagelsmann aujourd'hui il compte aussi sur l'enfant de Bambali Qui a xam moi, de Désiré Segbe ou par rapport à li nga euh, du côté du FC ah, plutôt du Bayern de Munich mom nee na donc euh, ba nga xam ne Dunkerque la nekkoon nee ba Sadio demee di signer fofu non contrat ah, dañu tok ben moment di waxtan ak ben dirigeant Bayern le dirigeant Bayern neko mais yow ci lo nekk mun ko ah man de instant yi ngi Dunkerque mais dama am option boo xam dañ bu fekkee Dunkerque dafa wacc mën naa am option libératoire mu ko mais boo ma jëlee ma ñëw mu ko ah da ngay kafala kafa mu ko non kafuma ma na agent bi si la téléphone am woo ben waay après ne yow eh kañ am nga entraînement dans deux heures de temps mu ko non da ngay ka wàññi nga donc neen mom non la demee Bayern nee na Bayern nak jëlu ko pas forcément parce que xëyitu Sadio Mané la et que Bayern du sànni xaalisam ne loolu la bëggoon a leeral par rapport ak loolu gars yi nag lan ngeen gis ci lii ki nga xam ne mooy donc Luis Suarez euh, euh, wax plutôt Alexis Sanchez wax ak Désiré Segbe ak Demba Mbaye Niang nga xam ne mooy ca donc ca Turquie way leen di laay ak jaa ngeen jëf